mbokk yi ma jottali leen communiqué bi bàyyee ministère de la santé et de l'action sociale tey ajjuma ñaar fukki fan ak benn ci weeru août biñ nekk ministère la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waajali ci junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak benn test yi ñu jot def téeméer ak fanweer ñoo ci positif ci ñooñu positif am nañ ci juróom fukk ak juróomi cas contact mooy ñi nga xam ne ñu ngi am feebar bi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci pardon ma euh, baamtuwaat ko am nañ ci juróom ak juróom juróom ak juróomi contact mooy ñi nga xam ne ñu ngi am doomu jàngoro ji fekk dañ ko jaxa dañoo jaxaso woon ak ñi yore feebar bi am nañ ci ñaari cas importé kenn kii mu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Dakar bu jas keneen ki mu ngi euh, ñu ngi ko nemmee ko fële ci commune bu Diofior am nañ ci juróom-ñaar fukk ak ñett kaa ñi nga xam ne mooy kaa communautaire mooy ñi nga xam ne dañoo jot ci doomu jàngoro ji waaye xamuñu ku leen ko ci ñooñu nag seen lim nii la tëddee Ziguinchor am na juróom-ñeent Mbuur am na juróom-ñaar Kaolack am na juróom-benn Bignona am na ñeent Kolda am ci ñeent Kédougou am ñett Mékhé am ñett Tiwaawoon am ci ñett Bounkiling ñaar la am Fann ñaar Nord ñaar Richard Toll ñaar la am sacré ñaar Saraya am ñaar Thiès am na ñaar Touba am ci ñaar Yoff am ci ñaar Almadi am benn Diourbel am benn fatik am benn Foundiougne benn la am Gibraltar benn géejawaay benn joal am benn xombol benn la am kër masaar benn louga benn mariste am benn mbàkke benn pikine benn rufisque benn sédhiou benn et vélingara benn téeméer ak fukk ak juróom si malade yu entré woon hôpital wér nañu bës ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla ànde fanweer ak juróom-ñett ñu nga ci réanimation benn malade ñàkk bakkanam bésu démb alxamis ñaar fukki fan ci weeru ut biñ nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba senegal wàññi na fukki junni ak ñaar ak juróom benn téeméer ak juróom-ñett ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu juróom-ñetti junni ak téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom wér nañu ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñeenti junni ak ak ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak benn ci hôpital yi wala ci loxo docteur yi nous avons reçu les résultats des examens virologiques ci-après Sur 1421 tests réalisés, 130 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,15%. Les cas positifs se répartissent comme suit. 55 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport, dont l'un est enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, et l'autre cas importé a été enregistré au niveau de la commune de Diofior. 73 cas de la transmission communautaire font partie également des cas positifs. Et ces 73 cas dits communautaires se répartissent entre les et communes suivants Ziguinchor ana 9 Mbour 7 Kaolack 6 Bignona 4 Kolda 4 Kédougou 3 Mékhé 3 Tivaouane 3 Bounkiling 2 Fann 2 Nord Foire 2 Richard Toll 2 sacré Thiès 2 Touba 2 Yoff 2 Les Almadies 1 Diourbel 1 Fatick 1 Foundiougne Gibraltar 1 Guédiawaye 1 Joal 1 Khombol 1 Keur Massar 1 Louga 1 Mariste 1 Mbacké 1 Pikine 1 Sédiou 1 et Vélingara 1. 115 patients hospitalisés ont été, ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 38 cas graves sont pris en charge dans les service de réanimation. Un décès a été enregistré ce jeudi 20 août 2020. L'état des autres patients hospitalisés et jugés stables. À ce jour, 12 689 cas ont été déclarés positifs, dont 8 165 guéris, 262 décédés et donc 4 261 sous traitement.